comme que Réobank réfléchir sur la demande du président de la République de mettre en place un, programme de résilience économique il ne nag microfinance dafa war a ci programme parce que quand même il y a ci gens qui dafa bëri li ñu ci à peu près 3 500 000 clients n'est-ce pas qui ont ne secteur de la microfinance l'activité économique du pays bi li ci secteur informel bi 97 informelle. informel la à daanaka ñoom bu microfinance donc ñu y ministère nañ gën a xool nu ñu dëgëral ñu taxaw ñu gën a dëgërale suñu taxawaay ci koom-koomu réew ci doxalin réew mi d'abord ci sax institution microfinance yi dañu amoon sax problème ay ressources mais crise bi ñëw dolli ko ci ñu amoon ay problème liquidité mais ñu ngi ko doon gérer gérer également aspect social bi may wax noonu parce que xooluñu rek économie bi dañoo taxaw ne xool ne dañu am rôle social bu ñu war a jouer rôle social bi mooy que ne euh, même client yi doon liggéey ci ñun dañu dañoo nangoo taxaw ne

ba génn situation bi li ñu waxoon également ci ci problème bi mooy suñu ci suñu wàll ci microfinance aussi bi ñuy liggéey ci ñun ak suñu biir au niveau de la PCD ñu ne ren dafa nekk dëkk wax dafa nekk situation bu jafe ba nga xam ne waruñu xool sa profitabilité wala rentabilité li ñu mën a xool mooy nu ñu def ba mucc ci situation bi ba suñu activité continue donc moo tax ñu ñu ñu def ay effort yu bëri comme le report d'échéance mi la wax nii ñu ne duñu jël ay intérêt duñu jël pénalité duñu jël ay frais dañ def pour client mais ñu li ñu seet rek mooy nañ fexe ba génn ci jamono toll ak